asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi ak mbokk gambien yi nekk fii ci Italie yéen ñuy déglu rajo defaral suñu bopp mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di ñëw rek comme niñ koy faral di defee bés bu nekk tey di 16 avril 2020 maanaam muy fukki fan ak juróom benn ci weeru avril ci année 2020 mbokk yi donc xanaa duñ def dara rek lu dul indi leen xibaar yi nga xam ne ñoo rot ci mbirum euh, euh, feebar bi nuñ koy faral di defee bés bu nekk muy xibaar yoo xam ne ñu ngi jógee ci direction protection civile bu Italie te kooku ñuy wax li jiite ko mbokk yi xanaa rek tey suñ jógee

dafa feebaroon ñuy xarit ñuy fay xaalisam bi xaritam xaritam bi lekk yëpp te loolu xaalis bu bari la xam naa dinañ ci ñëwaat léegi kon nag mbokk yi ñu dem e, ci chiffre protection civile yi di wax na rek ñi feebar bi dugg ci seen yaram ñu yóbbu leen hôpital di leen traité waaye nag sonn guñ te yàlla buñ sonn ñooñu tey mu ngi tollu ci vingt six mille huit cent quatre vingt treize ñuy fàttali rek ne euh, bërki démb vingt huit mille la woon onze démb nekk vingt sept mille six cent quarante trois kon nag wax dëgg yàlla suñ demee ba vingt six mille mooy mbir maa ngi wàññeeku bu baax te yàlla na yàgg di wàññeeku ndaxte ñi feebar ñu yóbbu leen ci hôpital yi. benn catégorie la signal waaye nag di wax ne wax dëgg yàlla loolu yàlla na fi jeex mbokk yi ñu dellu léegi ci ñi nga xam ne feebar bi sonal na leen ñu ngi leen dugal hôpital ba noppi di leen traité ñooñu tey ñu ngi tollu ci deux mille neuf kooku tamit wàññeeku bu baax am na ci wàññeeku bu baax am na ci ndaxte wax dëgg yàlla. ci bërki démb ñu ngi tolloon ci 3186 démb ñu tolloon ci 3079 tey nag wàcc nañ 3000 yi ñu ngi ci 2916 kooku tamit wax dëgg yàlla euh, yaakaar la yaakaar boo xam ne feebar bi mu ngi loru bañati lo wàññi nit yi muy loru mbokk yi ñu dem ci ñi nga xam ne dañoo virus bi bu ngi ci seen yaram sonnuñ nag waaye bi biñ defee test yi test yi mooy tampon wax dëgg yàlla ñooñu ñu ngi toll tey ci soixante seize mille sept cent soixante te démb wax dëgg yàlla ñu ngi nekkoon euh, soixante quatorze mille six cent quatre loolu moom wax dëgg yàlla gis nañ ne du wàññeeku li ko tax nag ci suma xalaat moo di ne test yi suñ ko defee rek Eh, eh, ñi ko yoree microbe eh, virus bi day yokk te fi mu nekk nii nag defal nañ ko presque un million de personnes ak lu toll ci Italie ñu doon imaginer peut-être suñ ko defoon soixante millions yi wax dëgg yàlla lu bëri dina feeñ xanaa rek ñuy fàttali ne aussi feebar bi am na ñoo wax microbe bi virus bi am na ñoo xam ne dina nekk ci seen yaram ba ñu wér te duñ ko xam sax. loolu moom wax dëgg yàlla xewal la feebar microbe bi virus bi mooy ñi ñuy wax asymptomatique day nekk ci seen yaram te du feeñ maanaam du am benn symptôme bu wane ne dañoo feebar duñ sëqat seen yaram du tàng seen baat du xasan wax dëgg yàlla seen yaram du tàng loolu lu am la mais nag virus bi mu ngi ci seen biir nekkul ne soldaar yi nga xam ne ñoo leen di xeexal nekk ci seen yaram bi ñoo ëpp doole virus bi ñooñu nag ñu ci bëri wax dëgg yàlla duñ dem sax hôpital mais ñu ci bëri ça veut dire que ci population bi suñ doon tester nit ñi xam naa ne ay deux millions de personnes sootul ñu ngi virus bi waaye nag dañoo am soldat yu aay yoo xam ne ñooy xeex ak virus bi kon nag mbokk yi loolu mooy ñi nga xam ne fii ci Italie tey ñu ngi virus bi mu ngi ci seen yaram mu ngi toll total 106 607 personnes 106 607 personnes Moi, nit ñi nga xamné actuellement bés ni ki tay tay le 16 avril ñom le virus bi dugg ci seen yaram nañ wax nak ci la docteur ya xam parce que nous leneen lo xamné xamuñ ko ndax defuñ test ñëpp ci population bi lii mbokk yi moy li nga xamné moy euh, bi ci Italie mbokk yi xanaa rek ñu dem ci ñi nga xam ne yoroon nañ feebar bi dem hôpital ñu leen di faj wax dëgg yàlla ñooñu tamit wax dëgg yàlla chiffre bi mu ngi yokk chaque jour ndaxte fi mu nekk nii ñu ngi toll ci quarante mille cent soixante quatre personnes wax dëgg yàlla loolu tamit xéewal bu mag a ci nekk ndaxte gis nañ tamit ne chaque jour. ñoom ñu ngi yokk ñu ngi yokk ñu nga xam ne wér nañ tey nag yokk nañ yokk bu mag a mag diggante démb ak tey mbokk yi donc ñu yegg jeexal ci mbirum chiffres yi ak ñi nga xam ne feebar bi duggoon na leen ñu yóbbu leen ci l'hôpital yi yàlla def wax dëgg yàlla faj-faj ba sonn wéruñ bañ ba bañ ñàkk seen bakkan diggante démb ak tey mu ngi toll ci 525 personnes wax dëgg yàlla wàññeeku na mais des na nag parce que 525 personnes diggante 24 heures nit di ci ñàkk bakkanam wax dëgg yàlla bëri na trop suñ calculer ne bi feebar bi amee ba léegi ci Italie ña ko fi musoon yore génn àddina mu ngi toll ci 22 170 personnes loolu tamit bëri na wax dëgg yàlla te gis nañ ne euh, case de riposo yi ñuy denc màgget yi. ñu ci bëri loru nañ ci loolu tamit lu métti la lii mbokk yi mooy li nga xam ne mooy information bi nga xam ne gouvernement Italie à travers direction protection civile joxe nañ ko bés ni tey di fàttali rek ne gouvernement bi ci lii continuer le 2 le trois mai bi nga xam ne lañ bëggee ubbi bunt yi ñëpp génn di doxi seen soxla waaye nag dinañ imposer ñëpp di takk masque ak gan tax te wax dëgg yàlla bañ a euh, jege ren jege bi jege bi ñu wàññi ko loolu tamit li ñuy wax distanciation sociale loolu tamit wax dëgg yàlla euh, euh, dinañ ko continuer di def xanaa rek ñu ne wax dëgg yàlla réew mi neexatul ndaxte mënatoo jege sawaay mënatoo ko jege da koy daan koy dànd sooy wax ak moom dëgg yàlla muy mbir mu doy waar nañ ñaan rek mbokk yi que feebar bi bu mu fi indi bañante ak ak ak ak ak lu ñu koy wax ci jiiñante comme la xew Chine chinois yi di sonal mbokk africain yi mbokk yi donc xanaa rek li ñuy delluwaat di wax mooy ndimbal gi nga xam ne gouvernement Italie mu ngi ko doon dimbalee wax dëgg yàlla ñi doon liggéey te seen liggéey bloqué wu ci mbirum feebar bi di wax ne si 600 euro wax dëgg yàlla lañ joxoon. ñi nga xam ne ñu ngi doon seen liggéey bopp suma xel mu ngi dem ci suñ mbokk commerçant yi te ñu ubbi ko woon depuis le premier avril demande bi di wax ne wax dëgg yàlla ñu ci ñi ñu ci bëri déposé nañ ñooñu bés ni ki tey commencé nañ jot seen xaalis ñi nga xam ne defoon nañ demande di fàttali rek ne demande bi IMS nga koy defee waaye nag wax dëgg yàlla euh, ñu suñ mbokk yu bëri. loolu ñuy wax codicépine bu IMS dañ koo manqué ñàkkul ne wax dëgg yàlla euh, loolu mooy yéexal ñi nga xam ne jotaguñ te déposé guñ parce que pour ñu amoon IMS bi dafa jafe ñuy fàttali rek nag mbokk yi loolu dina dem demande yooyu nit ñi di mën nañ koo def fii ba le 20 ba 30 avril sax waaye nag xam ngeen ne mois d' avril tamit nit ñi dañoo toog te 600 euros kenn mënu cee dund ci ñaari weer loolu tax mbokk yi gouvernement bi. génnewaat beneen bonus boo xam ne dina ko ndàmpaañ liggéeykat yi mu nekk ci 800 euros surtout nag li ñuy wax travailleur autonomie ñi nga xam ne dañoo yore partie te IVA ñooñu tamit euh, dinañ leen ndàmpaañ 800 euros pour ñu mën a fay seeni pese bopp kon nag ñi nga xam ne nag contrat dañ doon liggéeyee dëgg yàlla ñooñu loolu ñuy wax cassa intégration ne wax dëgg yàlla euh, nguur gi dina am lu mu leen ci jàppale dimbale leen maanaam seen salaire suñuy ñàkk du bëri à peu près quatre-vingt pour cent ci seen salaire nguur gi dina leen ko fay ñi nga xam ne nag dañ doon liggéey te ci période mois de mars bi te tooguñ ndax seen entreprise tëjul su ma xel mu ngi dem ci ñi nga xam ne dañ doon liggéey mbirum lekk ak mbirum docteur mbirum faju ñooñu gouvernement bi wax dëgg yàlla kontaan na ci ñoom ne ku ci nekk dina jël cent euros yokk ko ci sa bulletin de paie ndaxte ñooñu ñu ngi doon liggéey dinañ fayeeku salaire waaye nag gouvernement bi gis nañ taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ku ci nekk dina la yokkal cent euro ci sa bulletin de paie loolu mbokk yi mooy li nga xam ne wax dëgg yàlla moo fi xew liñ ci yokkaat tamit moo di waxoon nañ fi ne tool yi ñu nekk ci tool yi borom tool yi dañoo soxla ay liggéeykat ñu bëri ñu ma ci oo waaye rek di leen yëgal ne wax dëgg yàlla mbirum liggéey tool man euh, xaw ma ko xawma ma borom tool yi mais su ngeen góorgóorlu rek da ngeen leen am seen contact lii ñuy wax col diretti ak ñii ñuy wax conf agricultura bëri na mbootaayu baykat yi su ngeen leen jéemee contacter à travers internet. wala ca fa ngeen dëkk ngeen xawam ku leen xam ñàkkul ne peut-être da ngeen mën bokk ci liggéey ci liggéey tool yi te wax dëgg yàlla ñoom soxla nañ ko maa ngi doon wax deux cent cinquante mille personnes lañ soxla mais barki démb maa ngi gisaat ne yegg yokk nañ sax ba mu nekk trois cent cinquante mille personnes mbokk yi su loolu passé ñu wax leen mbirum këyit maanaam maye këyit wax dëgg yàlla euh, euh, gis naa ñu mu ci yónnee benn audio Euh, as euh, jigéeni tubaab di ci wax du leen wax ne nangeen ngeen moytu ku leen nax euh, parce que waxtu wi ñuy waxee tey gouvernement di itali waxul benn yoon ne day may këyit loolu ñuy wax sanatoria te ñàkkul ne su amee wax dëgg yàlla yaakaar na ne ñooy bokk ci ñi koy njëkk a wax looloo tax mbokk yi jàppale ne mbirum may këyit suñ ko waxewul fii ci rajo defaral suñu bopp mooy lu dara leer amu ci te mën naa am ñàkkul te ñàkkul sax soowatul ay euh, naxaate la kon nag mbokk yi gouvernement Italie mayewul kayit ay ministre ñu ngi cayitu pour ñu maye kayit ay syndicat ñu ngi caytu pour ñu maye kayit ay association ñu ngi caytu pour ñu may kayit waaye nag maye kayit suñ koy def fii ci Italie loi buy jaar ci parlement bi ministre de l'intérieur dugal ko fa Nous wote ko mu door a jox date bi nga ne ñi déposer te il faut nga am ku la proposer contrat maye nag loolu yëpp dina ñëw ñu wax ci lay pour que kenn du ci nax kenn donc loolu mooy xibaar général yi nga xam indi lañ ko mag doon wax ci njëlbeen wax dëgg yàlla wax ju ñaaw ji nga nañ ko ak ci ñàkkul na ci dëkk bi ñuy wax Tolentino dëgg yàlla euh, le mbir mi sax du lu bees tax parce que le 8 avril la amoon euh, la ko journaux yi génne woon foofu ca Marche région Marche mooy région bi nga xam ne Ancona mooy euh, cap mooy capitale bi waaye nag am na beneen dëkk bu siiw bu ñuy wax Porto Recanati te suñ mbokk yu bari dëkk foofu ca hôtel boobu ñu toox hôtel village mbokk yi donc li nga xam ne moo génn moo dine ne journaux yi dañ ne dafa mbokk mbokk moo xam ne dafa gaa fa mu doon liggéeyee dafa daanu wax dëgg yàlla lu ëpp ay at la nag ay at ci ginnaaw fukki at ci ginnaaw dafa daanu woon presque bobbeeg yaram bi yëpp yàqu ñu yóbbu ko hôpital faj ko ba mu xaw a tane waaye nag capacité am yëpp yoru ko ne nañ benn mbokk sénégalais moo ne cousin la. ñu euh, xam nga ku feebar doo mën signé ñu nommé ko comme curatore maanaam ki nga xam ne mooy toppatoo mbiram tam am ci ndogal moom nag wax dëgg yàlla euh, xaalis boobu ñu doon fay waa ji mu doon jaar moom ci kontam ay at mu ngi ko doon sakkal pexe ba dem jënd na ci ca dëkk ba kër gu cher boo xam ne mu ngi ko jëndee presque cent quatre-vingt-neuf suñ koy ceytu ci franc CFA. ba noppi nag di développer ay business am diggante Sénégal ak fii waxuñ li nga li biñ caytoo xaalis bi yëpp bu ngi toll presque ci cent et quelques millions cent vingt millions loo xam ne gën wàll milliard la loolu nag wax dëgg yàlla euh, ba ko mbokki waa ji feebar caytoo gis affaire bi dañoo jël avocat mu dénoncé ko ba loolu ñuy wax guardia delle sa dem ca kër ga bloqué kër ga

mënuñ wax nan la mënuñ dugg détail dañoo wax rek li nga ne journal bi moo bind te journal bi ba koy bind wax dëgg yàlla waxul tur ay lu ci milliard dañ ko parce que pendant dix ans loolu indemnité de pension ak ay dédommagement financier ci accident boobu mu ñoo ñu wax dëgg yàlla li ñuy wax risarcimento ci italien euh, loolu wax dëgg yàlla depuis fukki at soo ko dajalee xaalis bu bari la dem na toll ba ci génn wàlli million te dañ ne loolu la waa ji euh, toxal ba noppi sax jabari ku feebar ki ka nekk itali ka nekk Sénégal moom waa jooju yore woon xaalis mi ay deux cent mille la doon yónnee jabari ndaw ci Sénégal waaye toog ba si yàgg ne ko xaalis amatul sa jëkkër ji kenn dootu ko euh, dimbali mu nag ba ndaw sa am problème ba ay facture courant ak ndox ñu coupé ko dëgg yàlla lii de su dee lu vérifié wu la journal bu mag nag buñ Corriere delle Marche wax dëgg yàlla ñoo ñu xam ne ne nañ leen seen sérieux nekkul ma dem ba ma sàmba yiy bind rek di sànni loolu nag mbokk yi wax dëgg yàlla su amee lu ñuy ñaawlu la lu ñuy rafet lu ñàkk rafetlu la parce que xam ngeen ñun fii ci rajo defaral suñu bopp defaral suñu bopp la ñuy wax waaye nag na nekk defar bu jaar yoon mbokk yi maa ngi jégalu nag ci baat yooyu du may faral di joxe événement yooyu euh, genre fait ver lay doon sax ñu koy wax ci italien cro naka wax dëgg yàlla dama koy faral di ko joxe fii ci rajo bi waaye nag comme dañoo wax defaral suñu bopp suñ gisee lu yàqal suñu bopp wax dëgg yàlla il faut ñu ñëw wax ci lu mel noonu mbokk yi lu ñu war xeex la lu ñu war a bañ la te yàlla bu mu am ñàkk amati ci suñu communauté bi te wax dëgg yàlla waa jooju feebar ak njabootam yal na leen yàlla jàppal pour ñu mën a am seen jàmm ba jabar ja jógee Sénégal ñoo mën koo taxawu ca lañ koy fay mu mën koo taxawu bu baax loolu moo la gën loolu mooy li gën wax dëgg yàlla ji gisuñ leneen mbokk yi maa ngi jéggalu ci guddaay tey journal bi di leen wax ne rajo defaral suñu bopp. Euh, mu ngi continuer toujours di caytu pour que mbirum vacances yi coronavirus vacances li italien di wax magaari parce <laughs> <laughs> yàlla parce que wax suñu kër ay vacances ñakul ne su coronavirus bi jexé émission yi ñi def ci radio suñu ko looloo tax ñu leen di tàllal seeni loxo pour ngeen ñaanal ñu di leen tàllal tamit seeni loxo ngeen ñëpp ngeen ñëw jàpp si ñàkkul ne di dinañ fi ñëwaat waxtaan ci jërëjëf mbokk yi lii mooy rajo defaral suñu bopp ci xibaar yi nga xam ne moom la ñuy joxe bés bu nekk à partir de vingt heures seen xarit Baye Diouf di leen ko jottalil depuis Milan mbokk yi ñu ngi leen di jox dox daje suba ci waxtu wi. à partir de vingt heures fii ci rajo defaral suñu bopp jërëjëf.